Euh, page bi ngeen tiim comme mm, ni mu ko waxee ñu ngi yemoon ci bayit biñ mujjoon a jàng maanaam dars bi mooy dars euh, juróom bind bi ci baabu shuruti salaa mm, ñu ngi mujjoon a jàng wa duun wa duuna ci batini adud baglin min addami wa qayxin wa sudud ñu doon wax ci sobe yi nga xam ne si mëneefu ko moytu dañ koy jéggale waaw waxoon na ci eh, lu demee ne koo xam dafa yore siitalu gaanuwaay wala ñi koo xam ne si maanaam liggéeyam ci wàllu mbaam la dañ koy jégal lu bare bare ci ay nefray mbaam jigéen juy nàmpal bu fekkente ni góorgóorlu na dañ ko jégal sobe yu bare bare ak maanaam eh, deret sobe la dëtt muy mbir sobe la dëtt wànjar mbir mu ànd ak deret sobe la waaye nag baale nañ ci loo xam ne matul wërngal gi nga xam moo nekk ci biir euh, tànk kanamu euh, berkelle maanaam doomu fas mbaam mu jox baax la lu tol noonu di tolloog sunu ñaar dërëm loolu baale nañ ko mu ni nag wa zayli maratin li satri li sitriha wala li satriha mu taal ورجل مرة بيابس وزال كفضلة الحمير في نعل وخف ورجل, ورجل عاجز وفي الضد اختلف وموضع الحجم وقبل ودبر فحكم نجس في الثمان لا يضر عن دمل يسيل كل يوم نو لم ينبض لم ينضبط ولو قشرته عفو wa qarxatun waxidatun in yuftaqar li nak'iha ma saala minha yuxtafar wa athara dhubaabi law min cadira aw fi tacaamin xafifanna qadara wa kullu ma ufiya canhu in dahab sababu afwihi fa xasluhu wajab mu wax ni bokk na ci li ñu baale ba tey euh, juróom-ñett yi mu lay bëgg limaat mu lay bëgg limalaat euh, jigéen joo xam ni jigéen joo xam ni eh, dafa sol robam muuraay gi ñu ko sant ak eh, fegu gi ñu ko gi ko sant ci wàllu xijaab mu dem di ko sàmmonte ba maanaam rob bi mu sol wàcc ba ci ay tànkam di buubu lay buubu ca suuf rombaale romb sobe su wow mu takk ci yére bi waaye nag ba mu continuer di dem suuf si mi rombaat daal di faxas sobe soo sax loolee cee nga xam si moo cay moo cay feeñ di ci couleur dañ ko koy baal wala benn waay boo xam dafa jàpp ba set tànkam tooy mu dëgg ci sobe soo xam ne dafa wow ba mu dëggee ci sobe su wow si tànkam dëggaat ci feneen foo xam ne amul sobe mu dindi loola loolu loolu dañ koy baale euh, lu demee ne comme lu demee ne euh, maanaam neefere mbaam benn waay boo xam dafa sol dàll wala mu sol maanaam ay sange maanaam ay euh, sang maanaam bot yi mu sol ko dëgg neefere mbaam neefere mbaam wala neefere lu araama lekk wala koo xam ni dafa def tànku neen te li tax mu def tànku neen dafa amul dàll yum sol wala am na dàll waaye feebar na feebar boo xam ne mënut sol dàllam kook ci ñoom ñaar ñooñu ba tey dañ leen jéggal la nga xam si mooy taq ci ay neefere yu mbaam borom dàll yi lay taq ci neefere yu mbaam ca suufu dàllam bu julliwaaleeg dàll yi dañ koy baal eh, ki nga xam ne si tim dafa def tànku neen li tax mu def tànku neen mooy dafa amul dàll yum sol wala munta sol daal kooku lay taq ce tànkam ba dañ ko baal waaye bu fekkente ni eh, koo xam ne dafa def tànk neen te mënoon naa sol daal bu defee tànk neen lay takk ca tànk ba wuute am na ci ba xam dañ ko baal wala duñ ko baal eh, koo xam ne si dafa doon gàjju xam nga deret sobe la maanaam nga gàjji sa yaram pour génne deret ju dee ci ba nga ko génnee ba pare nag place ba ci boppam loolu cay tax ci ci deret dañ la koy baal walla wala koo xam ni sii dafa doon tàncu dafa tàncu maanaam euh, dafa dem wanag ba ba pare amul ndox moo xam ni moom lay defaroo mu jël morso wala këyit wala bant defaroo ko ba pare la nga xam si mooy des ca gannaawam dañ ko koy baal wala mu tàncu tàncu gaanuwaay amul ndox mu mu defaroo mu jël bant wala kayit wala morso maanaam defaru ci lay des la cay des loola baal nañ ko ko moo tax mu ni wa zayli maratin li sitriha mutaal xam nga dafa waxoon ca bay di jàlloon dafa ni wa ayu najsin taxarruzu asur minhu ala jismin wa thawbin iqtufir ka salasin bi kulli yawmin yaati léegi nag mu dem ba mujj nag ka zayli maratin li sitriha mutaal comme catu rob bu jigéen boo xam ni mutaalin bu ñu guddal la li satriha ngir ngir suturaam suturaal awraam moo tax mu guddal ko waaye bu fekkente ni pour taaral moo tax mu guddal ko bu taqalee bu bu bu bu taqee euh, duñ ko ko baal comme niñ koy baale ki moo tax mu ne wa dayli maratin waaye nag na fekk euh, li satriha mutaal dañ ko guddal ngir yokk suturaam wa rijlin wala tànk bu tooy in marra bi yaabisin ndem ñaar yooyu maanaam tànk bi dafa tooy walla jigéen ji euh, mbiccu robbam romb sobe waaye nag in marra bi yaabisin wazaal bu fekkente ni rombaat nañ ci leneen lu wow ba tey looleen mu dindi ko bu ko defee euh, euh, la ca des dañ la koy baal ka fadlatil xamiiri comme neferay mbaam fii naalin wa xuf boo xam ne dafa am ci tànk euh, ci dàll wala ci sang maanaam euh, dallu bot maanaam benn waay boo xam ne si euh, tànkam wala dàllam dàll yim sol wala bot yim sol am na desitu maanaam neferay mbaam boo xam ne si taq na ci muy julli julliwaale ko loolu dañ ko koy baal wala wala bu fekkente ni nag sa tànk la tànk boo xam ne dafa taq lenn ci neefere mbaam te li te tànk waa jooju nag dafa mënut a am dàll yum sol wala am na dàll waaye dafa am ngànt bu mënu koo sol kooku tim lay taq ca tànkam ci neefere mbaam dañ koy baal waaye bu fekkente ni nag mën naa sol dàll mu def tànku neen nag la cay tànk la cay taq wuute am na ba xam daañ koo jégal wala duñ ko jégal moo tax mu ni wa zayli maratin li satriha mutaal ak ci ak mbiccu euh, rob bu jigéen boo xam ni daf ko guddal ngir sutural awraam wa rijlin wala tànk bu tooy in marra bi yabisin wa zal ka fadlati alxamiri fi naalin wa xuf wa rijli aajisin waaye nag waxtu waxtu li fa wuute nañ fi diddi ci ci safaanu ki nga xam ne si dafa lott maanaam koo xam ni tànkam mën naa sol dal mu dem ba def tànku neen ba taq nefere mbaam ko kenn du ko baal waaye ki nga xam ne si tànkam yi muy doxe eh, dàllam yi muy doxe wala bot bi muy doxe moo taq nefere mbaam ko dañ koy baal cay tax kas néew wa mawdii alxajmi wa qublin wa dubur ak palaasu bi nga gàjjoo woon la cay tax ci deret wa qublin wala koo xam dafa tànc woon ci maanaam kanamam wa dubur wala gannaawam فحكم نجس في الثماني أتي سبي في الثماني تي جلوم نتي وخ لا يضر منام دولار عن دمل يسيل كل يوم نو لم ينضبط ولو قشرته عفو منام تاب بو خمني تاب بو خمني داي داي داي سيت دي توي manam bus bu nek dal bus bu dana nàcc mbir wala mu nàcc deret wala boog maanaam tey tey dana nàcc waaye bu ëllëgee day jëlal bu boobaa kooku dañ koy baal donte donte sax dafa ko xolli mais bu fekkee da koo bës lay génn sobe la waaye bu fekkee dafa xolli der wi ci kaw rek mu am loo xam dafa wow mu xolli ko noonu la ciy génn loolu ba tey dañ koy baale moo tax dangay ngay wax afaw baat ba mujj ci bayit bi bayitu ñeenteel baat ba ci mujj danga naan afaw baale nañ an dummalin ci euh, taab yesilu boo xam ne day nàcc deret wala mbir kulla yawmin bis bu ne aw wala sax lam yandabit régulièrul maanaam tayu nàcc bu ëllëgee du nàcc walaw xasartahu donte da nga koo dang nga koo xolli sax loolu baale nañ ko baale nañ tim góom boo xam ni góom boo xam ni eh, dafa ni ñu noonu waaye mu dem ba am der wu tegu ca kaw nga xam ni foog nga xolli ko pour mën koo faj boo ko xollee loolee di siit dañ la koy baal moo tax mu wax xarxatun waxidatun benn góom in yuftaqar ndem dañoo aajowoo li nag iha ngir xolli der wi bu kooku moom maasaala min ha la cay siite yoox tafar dañ koy jéggale danañ jéggére ba tey wa athara dhubaabi law min adira aw fi taamin xafifanna qadara weñ wu naaw weñ wu naaw wala yoo teg ci sa kaw yére fekk tànk ya maanaam moom weñ wi maanaam euh, dugg nekk jégg na ci ci wanag wi donte dafa taq ay dem gannaaw kër wala gaanuwaay maanaam dal ci sa yére loolee di ci laal loolu baal nañ ko baal nañ la ko moo tax mu ni wa asara zubaabi maanaam jéggale nañ ba tey xam nga afaw jéggale nañ wa asara zubaabi ak jeexitalu weñ law min adira donte sax ci ci euh, ci dem gannaaw kër la aw fi taamin wala ci ci ñam bu boobaa xaffifan na nanga woyafal woyefal xadara maanaam euh, salte sobe sa wala maanaam sobe sa woyef la daal lañ koy jàppe léegi nag yii ñu la baal yi nga xam ne si baal nañ la ko la taxoon ñu ñu la koy baal boo demee ba loola dañ bu boobaa nag dañ ko war a jigéen ja nga xam ni da mbiccu robbam dafa doon jaar ci dafa jaar ci sobe ba mu jaaree ci sobe rombaat ci leneen lu wow rombaat ci leneen lu wow mu dindi ko kon taq-taq yu ndaw yi cay taq baal nañ la ko waaye boo demee nag ba ba nga xam ne si nag summi nga ko am leneen loo sol demal nga raxas ko eh, naka noon tim koo xam ne si dafa doon gàjju lay taq ce ngàjjit ma loolu dañ ko koy baal waaye bu ne ba wér na ko raxas ki nga xam ne si dafa tànc woon moo xam ci dem ganaaw kër la walla gaanuwaay mu dem ba am ndox na ko raxas moom itam koo xam ne si eh, dafa am jeexitalu taab mu am yu cay siite ñi baal ko ko kooku bu nee ba wér moom itam wala borom góom ba kooku ba tey na ko raxas moo tax mu ni wa kullu maa ufiya anhu wa kullu maa ufiya anhu lépp loo xam ne baale nañ ko in dhahaba ndem dafa dem sababu afihi sabab la sababoon ñu bal ko ko bu fekke dem nañ ba lolu amatu fa bu boba fa ghasluhu raxas lola wajabal war bu ngeen xolé nanam kafaaf moom daanaka xalil lay top rek li yëpp bu ngeen sété ci khalil daf ci nek kon wa dayli maratin li satriha mutal wa rijlinin marra bi bisin wazal ka fadlati alxamiiri fi na'lin wa khuf wa rijli ajizin wa fi dhiddi ikhtulif وموضع الحجم وقبل ودبر فحكم نجس في الثمان لا يضر عن دمل يسيل كل يوم نو لم ينضبط ولو قشرته عفو وقرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر وأثر الذباب لو من عذرة أو في طعام خففن قذرة وكل ما عفي عنه إن ذهب سبب عفه فغسله وجب comme Alioune Badara nekku fi nag xaw ma euh, dégg nañ wax ji wala déet xam nga kenn képp ku toog ci néeg di enregistré euh, doo xam ba xam nañ ko wala waaye luñ ci déggoo rek incha allah euh, buñ ko yëgee seet nuñ ko mën a leeralaatee ñaan yàlla may ñu dégg ak topp di fàttali ni julli taf loxo ndeyjoor ci loxo càmmooñ ku ko def am nga julli julli wàccee loxo ku ko def am nga julli waaye nag dañuy d'accord ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosut a génnee ci làmmiñam wa ni bu ngeen dee julli taf leen seen loxo nday jot seen loxo càmmooñ waxu ko ci xadis bu wér waxu ko ci xadis bu wérul ku ma ci indi benn xadis bu wérul fu yonent bi ne bu ngeen dee julli taf leen seen loxo nday jot seen loxo càmmooñ réew moo nekk rek amee naa la ci ñaari million weddi wuñ nag ni am na ñaar fukki xadis ak benn yoo xam ne si yore bi waxu ko waaye am na ñuñ ca waxal ni ñoom ñoo ni gis nañ yonent muy taf loxo nday jot ci loxo càmmoñam yooyu mat na ñaar fukk ak benn بن ويروتي كلها ضعيف كما تي اندي يوي بن تا واخوما لا فام نياك ويري امينا لا نياري مليون بن حديث قبض ويرول بن بن أم بن بوير ياغنا كو واخ نك دا نان في ديك واخ ميم بوكو في ديك واخيت كين دو حديث بي كلها ضعيف